particularité bi Sénégal li li vivre actuellement c'est normal boo amul les idées bien en place et la détermination bien chevillée doo sori donc comme yéen tout le monde est résilient y a pas de problème quoi voilà c'est des couacs qui arrivent qui se produisent war nañu am assez de hauteur pour xam objectif lan la ñëlee am nañu objectif c'est dommage que la police peut-être euh, est là pour jouer ce rôle-là qui ne l'honore pas du tout parce que ñun policier duñu suñu naataango ñun procureur seen chef mooy suñu naataango ñoom bu ñu ñëwee rien que par respect rek war nañu mën euh, teral ni ñuy ñëw teral leen wax ak ñoom wax bu rafet voilà waruñu fàtte ni ku ci am problème ñun ñoo ko ñoo lay solo robe défendre la donc mënuñu toroxal avocat nii du jour au lendemain ñoo waxtaan ba pare euh, tout le monde m'a dit que visé parce que ñëpp gis nañu bi ñuy rejoindre tranquillement suñuy oto li ma dal plainte plainte contre X pour tentative d'assassinat voilà ak ñeneen ñi mag la ñu bi ñu leen di kii c'est pas bien rafetul mais nag aussi tamit dañuy ñëw pour ànd ak suñu huissier parce que situation bi elle peut pas durer mënoo jël un citoyen xañ ko liberté am ko ci conditions yi tëj ko këram parce que Ousmane Sonko est en prison chez il est même pas en prison il est en cellule régime cellulaire mënul génn këram kenn mënul àgg ci moom mais loolu bu ko defee comme si rien ne se passe loolu doy na. maître lan ngeen fas yéene def puisque nangu nañ ay téléphone am nangu ordinateur portable am euh, daal di koy daal di koy accès euh, interdit leen accès bi foofu noonu. yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp daañu ko faj incha allah bagage am danañ ci jotaat euh, voie de fait yi ñu ko teg nii loi Sénégal yi koy bañ bare nañu donc bu ci kanamee on va publier déjà des éléments pour wane suñu réaction officielle ñëpp gisandoo ko su laajee la neen tam conférence de presse wala leneen dañ ko mais liggéey bi mooy on va déposer des requêtes auprès de qui de droit bu ñu xam ne ay avocats toucher mën nañ def liberté au niveau de la cour suprême on le fera le conseil constitutionnel lui-même mën na prononcé ci lii am sans compter que maintenant bu ñu duggee ci yenn éléments yi on touche le crime de persécution ci article du statut de Rome bi tëral cour pénal international dafa bokk ci crime contre l'humanité bu àggee ci niveau bu mel nii kooku dafay jàll facilement te lii tam mënuñu continuer bu ñu dem ñun parce que suñu dëkk Sénégal rek la ñu am euh, ñun moi personnellement je suis inscrit à la cour pénale internationale depuis mais rus naa def procédure contre mon pays mais su dee moom pays damay dox ñu may bëgg a rey léegi sama bakken la ñu a jël mais quand même yenn ñàkk fayda wala la dara nekk taxawaay ordre des avocats dama ne yàlla moo bañ rek waaw dañu ne alhamdulilahi lazi adana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawlan adana la mais avocat boo ko reyee ci condition yi mais am na ndam dem na àjjana ba pare ñun dañuy def suñu liggéey rek pour rencontrer un citoyen persécuté te wóor na yàlla billahi lazi la ilaha bu doon citoyen boobu Macky Sall wala keneen on ferait la même chose parce que ñun suñu serment loolu la mais eh, rek ngay wax ak nit poliment tourner le dos di dem ni mu ngi bëgg a faagaagal c'est extrêmement grave mais ça ne pas impuni non daa daañu suñu liggéey parce que bâtonnier mooy suñu kilifa ñun ñoo ko fal conseil de l'ordre ñoo ñu yore ñoo ñu gérer ils vont ils vont ils seront informés ils en temps réel eh, li war loolu loolu moo nekk kàddu ki nga xam ne moo di maître Khoureychi Ba Abdou